الربا وسلما لمن ختم سبيل يهديك لسكتا ولم يكن بالمهلكا ولم يكن بأدبا سيرته لم يكن متاهما ولم يكن مكسما وخاف كل من سما لوجه الأدبا بالرب ثابت

You're my girl. مغفور الجبير ورنما ورنما دمنا أوران واي waaye jël mbaax boobu sédd ko keneen kooku yombul yàlla dogal na li may wax ñu bari xamuñu ko ci tànn te sama mbag dooju jëm rek nu ma ko mujj nekk li wax ndax ay yoon na ma ko fii ci baax yi mu am barab boo xam ne Basiru Jaay moo ko ko won ñu ko nañ def fii fekk El Hadj Bassirou Diagne boppam la féetale woon barab boobu kooku xam ngeen ni vraiment yéen a lu rafet am li tubaab di wax générosité maanaam am yërmande loolu weesu loo fagul sa bopp mujj summi loolu jox ko keneen lu ñëpp ko mën sama rakk colonel Abdou Fall moo ni ma foog nga dem ci àll ba demee it nga gërëmal ma jeewoo ndax gërëm bi yàlla suturaal na ko ay waajur yu baax la am waaye bi mu tàbbee ci sama loxo dafa wane woyof bu mat sëkk ndax sababu tàbbi bi kat musiba la woon ndax euh, maanaam euh, colonel Abdou Fall dafa am magam bu ñuy wax euh, Saliou Fall yàlla dogal bu ak si nga def te dañ doon laaj sa teewaay tey si bés bi nga xam ne Mouhamed dafay fas yéene ñaanal baayam El Hadj Bassirou Diagne. jërëjëf kontaan si bés bi sant yàlla bañ ko fekkee waatee li chaque année day am El Hadj Bassirou Diagne sama mbaa si jekko la woon fii boole ma ak Mouhamed Diagne jekko moo boole Mouhamed Diagne muy sama xarit sama genn wàll lu muy def ma laaj du def programme bi man si di ko waxal li ma gàtt koo yëgal kooku la koo yëgal du kooku. ngi koy sant yàlla bu baax ñaan yàlla téye bi kay demee lu bari. tey danañ ci jaayante yow. yëngal sant yàlla bu baax sant yàlla lii Seydou Diagne waa gërëm yi gërëm naa leen sant naa leen kontaan naa ci bu baax merci. Adja naka def ay nga doon laaj seen teewaay si bés bi lan moo ko waral. waaw teewaay bi suñu teewaay si bés bi lenn rek mu ñëw. ci suñu ñaanu maam Baye Bass wax dëgg yàlla maam bu baax la maam la papa la lépp la suñu ndax moo ñu yar wax dëgg yàlla ah Mouhamed Diagne moom kooku sama lépp la sama càmmit la sama góor la deret daf ma boole ak moom kooku moom wax dëgg yàlla aw ma sago ci moom waaw mbokk moo feeñ wax dëgg yàlla nit ku baax jaañ naar yàq yaay baaba jaañ biram yaay booy jaañ jaraaf nit ku baax sama càmmiñ sama xarit teewaay bi tey lu mu demee noonu. te Bachir c'était l'élu du bon Dieu. dafa nekk ak mag ñi ñu jur ko mu nangu mag ñi di leen tarbiya di ànd ak mag ñi mag ñi dem ba xam ni mag ñi roofu na ñu ni kan suñu jox loolu doy Bassirou Diagne mu Marème Makhtar moo ñu doy moo ñu doy doy ñu jël ñu jël lépp pour ni ko yabal ko yabal dina dem làmb ci ci baax dinaa ko jox ko tàng xol kon ñu koy yebal ñoo ñuy nettali jëf ju jam fay def ak teraanga moom la mag ñi bóofam moom la mag ñi doyloo moom la mag ñi yaakaaroon moom la mag ñi wóolu moom la mag ñi joxoon lépp ñu téye ba mu mag te newal ne leen ñetti bàmmeel sama sama grand ci lay ci waaw mais dama gis sànq bi ngay wax nga joxoñ photo Mouhamed Diagne am loo si wax waaw fekk bàyyi jénk sëgg di ko dee loolu noo ko mën a tiit bi mu ñëwee daf ko seede dañu seeti paparaan paparaan nag ginnaaw seen naa limaam seen naa isaa la ruu laahi ruu seen naa ma ñoom bay Seydi Thiaw moo ñëw quatrième xalif ànd ak mu ànd ak ko mille mille cent après ko nga génn boobu mooy xalif paparaan na ko du génn toogal parce que kii sa ëllëg kii la moo la koy moo koy taxaw moo koy nettali ma gis non nañ ko bàyyi xel wéttalu baayam la woon te ku daw ci sa pëndu ci sa vitesse su papa ci pëndam pënd bi jóg nga daw ci biir pënd bi fa ngay teg sa tànk du la jaaxal ndax yàgg ngaa gunge sa baay da koy miin ku tarbiyewul sa baay sa waajur nangulul nangulul sa baay doo am lii ndakaaru tolloon na guddi yu xam ni ak réew mi lu ñu wax dañ naan tey la àjjuma ñu ne am ñu ni ñoo nga ñoo nga jëm ñoo nga kaw jëm kër Bassirou Diagne kër Marème Sow lu tax fa ñuy waajale dem juma bu ñu bëggee ñëw añ xéewal xéewal yi génn ñu yeggale béykatu yonent yi bay yonent jàngatu alquran jàng moo tax ñëpp ñëpp ñëpp fa biyee màkk dafa bari ba ci wuude bi nekkoon ci bunt kër gi aw bas jox na ko biyee màkk ak te da daan ëw rek ci buntu kër ma yóbbu màkk mu ne la may ma ma yóbbu ceerno sarax ma rek dimbali ma ci nga wax mu jaral ko raam ne la wax ma lu ma may ma ma yóbbu damaa ciy jox benn anecdote alaaji Madoun Thiam koo ko xamoon alaaji ñaan binta seen mu rasululaay nga mu war a yóbbu ñaan binta màkk bas ñëw ko dama la ñaan sarax ma mooy yóbbul ko ma yóbbu ko man moo yóbbu Taayaasi moo yóbbu Ibrahima mbay man ayi la man ayi mbay Seck ñëpp moo leen yóbbu màkk kon tey bu ñuy lim ñu yóbbu màkk ba ismu nabi yi am na ay junniy junniy nit kër ndeyam kër baayam dëkkandoo wëlëre xarit ku mel noonu lu ñu koy dafa ñu mel nii ci diine lislaam ci kër yëpp fu mu wàcc am fata entier franc loyal humble. xam nga lu bon tariixa yi di xuloo loolu baaxul moo tax Serigne Ablaye moo ci génn ñun. waaw. Amar Laye Serif sa baay moo ci génn moo nu wan yoon moom rek ci réew mi moo fi am doom tudd ko Cheikh Tidiane Sy moom moo am doom tudd ko sëñ Mansour El Hadj Ibou Sarr Cheikh Mbacke Abdoulaye Laat sëñ Ablaye Kane. li daal dana ko wax aussi mooy tariixa yi di xuloo aywa. ilalla. tariixa yi di xuloo amul ku ne nanu ko waxal la mu wax Seexul Xadiim su demul woon gis keneen ku dul woon moom boo demee doon ñëwaat fii. sama maam sama sopp maam Maodo si soo dajale woon naaru Màkka yi li Maodo bind naaru Màkka yi mu ngi ci àndal benn aar. Maodo si nekk bi leer yi yor si gën a gën a yóbbu maa ngi jëkk xam. لا إله إلا الله

bu ñëwee ku dem yow barki démb ñëw nga ku xool ni yow ak Cambérène demee nga xam ne nii du ay caaxaan. waaye ñu leen dëgg la. dëgg la léeg-léeg ñu nuyu ñu Icalaay bu ñu sëñ bi maanaam si si. damaa gis lu mel ni ma. waaw waaw. li ma la ko laaj te tey ku ma.

الدنيا بمن يعرفه يوهن والمدينة لا يوهن la dégg ne. waaw waaw waaw. suñ bàmba ma jéem a toog. te nga baax te nga baax. waaw ba suur. bari doole bari doole. poñe ma ma. kon nag yàlla yàlla may. kon yàlla nañ yàlla may ñu teew ko ay déwéni déwén ku ne am amiin yàlla nga ci bokk. lii fi xew de. lii fi xew de. dafa war dafa lii fi xew lii fi xew. dafa war a am dafa war a am. lu war lu war. a am war am. mënta ñàkk mënta ñàkk. sant yàlla. kon ñoo ngi sant yàlla. di gërëm Seydou. di gërëm Rose. di gërëm Mohamed di gërëm ñëpp. jay na ba jeewoo may mun a yéen ñëpp mi ngi leen di gërëm di leen sant ku Mouhamadul Bachir grand sëñ di sa wayjur nuyu na la tàttagal na la dox na la sa wàccuwaay lenn de dina ko wax Seydina Mohamed xam na ko bokk naa ci ñi man bokk naa ci ñi paabas mujj waxal dénk ma lu bari dénk ma lu bari waaye man de ministre Seydou Gueye ñemewuma ko ci mbooloo liñ ci war a def dinañ ko def maam seeni ministre nuyu na leen imam Pape Samb tey bés bu mag ne danga ko tegle sa waajur bu góor Mohamed <clears throat> ginnaaw bu nu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin Euh, li ñuy yëg si njëkk mooy manifester suñu contentement jëm ci presse bi jëm ci acteur politique yi jëm ci sëriñ si jëm ci collectivité lébu ndakaaru médina kenn desul fu waay ne fàq nga ñëw loolu dafa sedd suñu xol maam bay sentiment de satisfaction de joie et d' objectif attendu la macha allah si ndax sa jëmm te du ma ci yem sax bi ma koy def démb ci guddi dafa am kilifa gu mag ku ñëw fii gaare otoom xool ko waatal ma ci lépp lu mu gën a forle ne moom man aw ma fitu làngu lu toll nii te ministre de la république la ma ko nag incha allah dina fees mu ne ma xanaa jinne koy feesal ma ne ko nit ñi bu dul sama jëf man ak sama digganteeg nit ñi jëm Alaaji Basiru Jaañ waaye Mambay xam nga lii lu ma si jàngat rek ci tënk mooy lu ma daan def lu baax benn war naa ko yokk fukk lu ma daan def fukk war naa koo jéem a yóbbu téeméer ndax lii ku mu seddul sa dara dootul sedd sa xol bu baax géew bi opposition bi kenn desul pouvoir bi kenn desul lébu yi kenn desul ci suba Bamba Fall ma moo fi jiitu nil ma teraangaam boole ko kaf ree wax ju neex moom ma gën a lépp euh, président de la république yónnee ma ndaw Antoine Félix Diome yónnee ma ndaw Zahra Iyane Thiam yónnee ma ndaw ministre Amadou Ba yónnee ma ndaw macha allahu rabbul alamin mu nekk lu sedd xol effectivement li ko waral mooy moom moo ko tijji maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndax moom dafa jàppee boppam doomu Medina jàppee boppam ab lébu pur lébu ni lébu di mel parce que lébu doo fen sa nawle lébu doo fen sa doo doo toroxal sa nawle lébu doo xañ sa sa sa nawle sa sa mbokk lébu ni yow Seydou na dafa fonk mbokk bés bi bi ma koy dox bëri na barab yu ma dem maak moom ñoo ko ànd bari na courrier yu ma déposé sax moom moo ma koy rédigé ci loxam demande d' autorisation demando demande de couverture médiatique seedeel naa ko yàlla koon dama koy sant di ko gërëm te fi nga koy gis noonu moom président ñoo àndoon dem euh, àndoon dem euh, waaw dañu tukki woon ñoo àndoon na dem Accra dafa egg si jóge jóge aéroport jubal si fii directement euh, li mu def si man mooy mamba yi nit kenn du ko lekk kenn du ko naan bés rek lañ koy doy te ku ñu fay sa bor nga mer li nga leble woon baaxul te Mouhamed jaañ ko koy lebal lebal ko jàmm boo ma lebalee safaan ak képp koo munti doon bu la yàlla yónnee sax dinaa jàkkaarloog yow jéem laa delloo safaan waxatuma laa ku may lebal lu baax xam nga lu ma lu li lii lu muy indi mambay mooy asgor boo ko teralee tëral nga ko soo ko toroxalee toxal nga ko maa ngi jàpp seede waa Medina ne Seydou Gueye teral na ma waxuma teraa ngay xaalis waaye teraa nga ci darajaam teraa nga ci jëmmam teral na ma Mhm. dama am benn photo bu ma yéem ci biir ma gis photo bi ñu teg ko. dèjà kenn toog ci si podium bu ba foogoon ne dafa am gan buy ñëw mais ma am lu si dégg ma bëgg loolu leer ginnaaw loolu tamit mooy déyoo bi nga xam ne moom nga doon déyoo sa waay ndax ndénkaane la wala am lu mu bàyyi si yow wala saa li indi bi tey. maam Mbaye gis nga photo bi xam nga gis nga bâche bi ni mu rëyee mhm. lu gis nga chaise boobu ma teg ni mu rëyee ñaari nit xaj nañ ci mhm. li ma si jublu mooy symboliser. dayo bi góor gi amoon xajul woon ci benn fauteuil ci ci benn fauteuil nii bu ko toogee da koy fees macha allah li ma ciy symboliser mooy fauteuil boobu bi mu si jógee ba tey il y a un très grand vide boo xamante ne kenn toogu ci Ndakaar amul Serigne Ndakaaru loolu laa jàpp Ndakaar amatul médiateur social li mu am mooy rokki mi rokkaan ku lay defal dara di xaar ci yow dara looloo fi am koo xamante da lay dimbali xaar bu subaa nga tàgg ko koo xamante ne bu la dimbalee tey nga wax ko dëgg suba mu saaga la mbaa mu saagalu la loolu laa fi gis moo tax loolu laay marqué malheureusement nag ça a été mal compris et mal interprété waaye ñun ñu ko def xam nañ liñ si jublu maam mbay photo boobu li muy tekki mooy doom ju tar bi yu baayam xam nga li di wax werante xaw xaan tekki tubéy man sama diggante ak Basiru du ma ci laay lu ma la wax nga weddi dama indi preuve parce que man nag jamonoy photo photo laa tombé ak technologie macha allah maam mbay gis nga li mu li mu téye sama fii day wane familiarité bi ñu amoon man ak moom sama gaayen la woon je n'utilise pas le même le mot copain gaayen sama xarit la woon amul lu ma ko mënul woon wax amul lu ma daan lu ma mënul woon wax benn ñaareel ba li bés bi réy réy réy organisation sama loxo la teg ku wet di ma génne image vidéo yaa ngi fi am naa samay grand frère yoo xamante ne dernière saraxu ndakaaru Basiru la ñuy doog a di ñëw sax di xam lan mooy saraxu ndakaaru kon euh, euh, mamba mun tey am te ku ñu fay sa bor nga li nga leb la baaxul tey dafa am gisoon sa jëmm mooy Bassirou ah, de yàlla na yàlla yokk leeram ku jege woon sam pàpp la ci waxandoo su musaana xëy ci dugg ci dëkk ba ngoon jot dina ñëw ci sam pàpp ñu toog waxtaan moo génn bés ne ma sa papa la doon jëw wax ma wax yoo xamante ne ndiroon naag lii ngay wax xëj na kon mu gisoon na boppam ci man mais mam mbay butéel la mu def rek la saañ bay xeeñ nit ki bu la yaree tàggat la toqatal la boo jëlul jikkoom boo melul ni moom wax dëgg yàlla te muy ku baax boo wax dëgg yàlla war nañ laa mën a seetaan loolu loolu moo ma dal ci moom c'est-à-dire sama kilifa la yar ma ma bëggal ko sama bopp fan ko muy sama idole ma respecté ko ba tax macha allahu rabbul alamin xëj na ma koy roy xëj na may jéem a mel ni moom waaw xam nga loolu nag euh, waaw loolu li koy daal dafa am fu nu yàlla boole maa moom fu dul fii du zahir loolu du zahir baatin la moo tax suma ma ñu bàyyi noonu waaye daal ku dul yontu yàlla Muhammad Basiru Jaañ ma la gënal billahi lazi laa ilaha illa hu la yàlla dogal li waykat bi ne ko gënal nga nu sunuy ndey gënal nu sunuy baay te yaa gën sunuy maam gënal nuy junni waaye man daf ma gënal ndey gënal ma baay gënal ma lu ne Basiru def ma ko woon sak baay maam mbay en fait sëriñ laa ko def sama sëriñ la woon ma di ko yu di toog ci keppaaram di xelli ataaya bi <laughs> mooy yónni may dem muy mer di yuuxu may nangu mu doonoon kilifa gu gu gu lewet gu lewet waaye gu tàng c'est-à-dire dafa ñaari jukko yu ma neexoon ci moom mooy lewetoon na ba ñëpp ñemeñ ko waaye am na fulla ba kenn yabu ko kooku yàlla ji Basiru Jaaj mi ngi may laaj kontaan ci presse bi ñaw looloy sama sama sama rôle donc presse local bi nekk Médina yéen ñëpp euh, Médina TV bu bu bu bu HD bi beneen Médina TV bu zone bi ñoom Saliou nga xam ne dañ ko direct Dak Médina nga xamante ne bi bés bi taroo lañ ma wane ma lan la ñuy def yéen ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla bi ngeen juddoo yàggul waaye raamu leen da ngeen jóg dox macha allah allahuma laa duru sama tama sama cat ak sama catal morom yàlla leen yàlla lafal cat def nañ fi benn émission boo xamante ne yéen waa Médina euh, Nouvelle Vision moo yëngal dëkk bi ba <laughs> fi mu nekk nii macha allah rabbul alamin ku nekk ngi wut a wax yàlla na leen yàlla cat yàlla na ci yeneen ndam top Medina Nouvelle Vision tamit ñàkk koo xam wóorul waaye tamit ma gërëm euh, Kiki TV waa Kiki TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak Samir sekk sunu xarit bi ñu ca am wax dëgg yàlla di gërëm euh, presse bi fi ñëwoon ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.